jëf mbokk yi ba léegi rek ñoo ngi ci journée bi nga xamante ni Yaram Art Events moom la ñu war a tëgg le 24 décembre incha allahu rabbi xam ngeen ni grand combat bi mu war a dox ci diggante Gamou Gueye ak ki nga xamante ni moom mooy Tapha bi combat boo xamante ni ci biir journée boobu lay am war a dox ci diggante Petit Baye ah, numéro 2 ak ki nga xamante ni moom Talla Gaynde bu fan bu Parcelles Assainies Petit maa ngi la nuyu bu baax a baax di la ziar. auzu billahi mina sheytaani bismillahi rahmaani rahim gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur maa ngi sant képp képp koo xam ne fan su Petit Baye Fall nga rawatina waa Tëngéej ji waaw maa ngi sant aussi ñi ma àndal muy Kona mbay ak site mhm. waaw di sant sama adversaire aussi. lu tax ngay sant sa adversaire loo ko nuyu rek. non moom du sequma ak moom loolu dama koy sant ngir. am na ñu ma doon jox ñuy daw. waaw wallaay dama jël combat bi ngir bëgg a bëre rek. Mhm. ak bés bi ni mu toll. mais kii maax moom sax du naa cinq ay nda quatre victoire benn défaite hmm. waaw ay ndaanaan rek laa daan kon kii maax moom du làmb yéen ñaar du làmb taala maa ngi lay bëggee gannaaw baat onze billah bisimilah ina wali yàlla rabbi sarax li sadri weesar li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli maa ngi sant suma sëriñ maam lamp bu sërif Assane Fall naar kaw sara Fall ak maam Gunda rakam di sant gaay fi teew yëpp di bëggee gaay yëpp di ko wan ni kii maa koy jox deuxième defatam ci kàttanu yàlla bu yaroo hmm. ma daan ko jël bu yomb bu réewee nag waaw ma duma ko daan ko jël bu lan sax. non jàpp ko daan ko rek bu yaroo nag ma jàpp ko daan ko bu dee leneen nag ma jàpp ko duma ko duma yu metti ndax am na adversaire fi jaaroon. Hmm. waaw yóbbu ko aar na ñaata yoon. barki naa ko door ba mu tëddal boppam. mais nee na yéen ñaar du làmb. Cheikh Ibra xam na ni du ma wax di waat mais kii nii mën naa ko door mu tëddal boppam lu leer naa lay wax nag voilà. dóor ba mu tëdd. barki maam Serap Fall. loolu kii ñi ma xam dëgg buñ déggee kii dinañ xam ne waxul dëgg. déedéet waay billaahi boo waatee ma waat. yow daaxoo ma xeex daaxoo ma bëre sama combat mu top 5 laa yóbbu waa ji hmm. yow waaw nañ bàyyi bés ba rek wax ji jarul ngay waat naan ay xaw ma bu si dugal benn sëriñ te billaahi wallaahi naa la duma te yéen ñaar ñëpp mois de mars ngeen mujj bëre man daan hmm. moom du nekk di wax yow yow yow ñaata victoire nga am waaw ñaata victoire ñaata la am bëgg li jënd yow li jënd say combat say victoire rek bàyyi ba jour si si kàttanu yàlla yow dañ lay longu ñóbbu la incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla waaw loolu nga def sa xel rek mais billaahi da nga waat wóor na Serigne Touba Mbacke dama lay daan incha allah par force fi ma jaaral say morom fa yow yaa gën a tuuti si ñu ma bëreel su neexee bu neex la mu naxare dama lay daan par force yaa ko man dama lay duma billaahi boo bëggee ñu xeex maa la daax xeex téeméeri junni yoon Lamine kii nii mënu ma wax lu ma jaaxal lu ma tiital man dama runge barke maam seera dama runge non runge bis bu bu daanoo pare dina toog ak ay mbokam ñu waxal yu runge hmm. waaw kii maanaam li ma koy wax du bari quoi. dama koy wax bu bis ba mu ànd ak li muy ànd ak ma daan ko jël. Hmm. waaw mu dem ñibbi si kàttanu yàlla. acca mu gaaw woote une minute rek. waaw maa ngi woo waa Tëngéej yëpp maa ngi woo waa Tëngéej yëpp particulièrement waa ASC di woo Paka Boy aussi di woo Pape mu jàpp si combat bi di woo sama mbokk yëpp sama mafia ci kili bi waaw mafia yu ndaw yi ñëpp maa ngi woo ñu jàpp si di woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Tëngéej bu bàyyiwuma kenn di woo Kase sañu maire bi maire Nord ak tamit ki yor ville bi ñu ngi lay woo ndax combat bi daf ñu jaral ndax ki ñuy bëreel booy bi dafa bëri wax dafa talaxu maa ngi oo waa Tëngéej yëpp ñu ñëw jàpp di sant sama yaay nag di sant waa Gàlle yëpp. waaw maa ngi sant gaa yëpp di sant ñëpp di sant waa digg ñaaka tàng bi bu baax a baax a baax di leen sant bu baax di leen gërëm kii xam na lu ko yoon may. kii xam na lu ko yoon may wax jee bari nii rek. day naa adversaire bu ne. mais moo si gën a ndaw. adversaire bu ma dajal lu ne ngay wax boo ñëwee da ngay tëddal sa bopp. jërëjëf waaw kontaan nañ ci yéen le 24 décembre incha allahu rabbi dem leen yeneen ñëw jaajëf.